Ndour nekkoon ministre de la jeunesse mi ngi fa woon Abdou Abdou Mbow aussi tamit euh, moom tamit euh, mu ngi fa woon ak Seydou Gueye ñoom euh, doon ñëw di jàppale ki nga xamante ni moo di activiste bi di Bah foofu nag lu ñu fa nemmeeku moom mooy ay tirs lacrymogènes pour disperser militants Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne ñoo ñëw ngir jàppale Bah ginnaaw bi mu defee benn sortie wax ci Ousmane Sonko premier ministre ñu koy topp ci loolu terroristes yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon donc ñoom ñoo dóor ay lacrymogène foofu ba ñu war ko déglu ci euh, fi nga xamante moo division des investigations criminelles tey jii ci mardi bi ñu jàll ci beneen xibaar bu nga xamante ne moo soxal des euh, maanaam accident ci hélicoptère président euh, Ibrahim Raisi mu nekkoon président Iran ki nga xamante moo di président de la République Bassirou Diomaye Faye bind di wax ne am na tiis ak naqar boo xamante ni ressentir nañ ko ndaxte président Ibrahima Raisi euh, xarit la woon ci Sénégal état iranien aussi xarit la ñu woon ci Sénégal donc ñu ngi delloo njaal ci peuple iranien yëpp euh, ndaxte di duleur bu mag a mag la ci lu nga xamante ni moo di euh, moo di jiite njiitu Iran euh, ñuy fàttali rek ne di ci lundi bi weesu dimanche sax la ndaxte lundi bi ñoom moom lañ ko fësal Ibrahim Raisi ak premier ministre ministre des affaires étrangères bu nga moo xamante ni moo tudd Hussein Amir Abdoulaye moom ci benn hélicoptère hélicoptère bu def accident foofu ginnaaw bu ñu jug jugee ci euh, benn inauguration ci benn benn sonk euh, ci la avion bi mbëkk benn montagne avion bi nag ci la daanu ñu nemmeeku ci euh, deewug Ibrahim Raisi nekkoon président euh, république islamique bu Iran ki am na keneen beneen président boo xam ne Ilham Aliyev boo moom tamit ci avion bi la nekkoon président Bassirou Diomaye fay di leen delloo njaal ñu jeexalee ko ci beneen xibaar bu nga xamante ne président Sud Afrique du Sud la soxal di Jacob Zuma moom 2009 mu nekkoon président Afrique du Sud. moom nag dafa waroon dem ci jongante élection générale eh, ci fi nga xamante ni moo di Afrique du Sud eh, am quatre-vingt-deux ans moom ñu tere ko mu bañ a dem ci élection eh, élection générale yu Afrique du Sud yi waroon am le vingt-neuf mai vingt-neuf mai bii nii di ñëw ci ndaxte cour cour constitutionnelle Euh, boo xamante ni moo fa nekk ci Afrique du Sud moom moo ko teree mu dem ci élection présidentielle yi euh, ndaxte Jacob Zuma 2009 moo nekkoon président doon jiite congrès national africain euh, doon jiite congrès national bu africain mandat mu doon ko fal mandat mu mujjoon démissionné en atum 2018 six ans bu mu quitté pouvoir boobu léegi dama ma jafe-jafe la ma ci wàllu corruption ak yeneen ak yeneen bi nga xamante ni nag moom moo di Jacob Zuma. Euh, doon na jiite Afrique du Sud 2021 euh, ñu condamné woon ko euh, mu waroon dem si élection yi nga xamante ni moom moo nekkoon ci Afrique du Sud mujj fa dem moo di élection yi mbokk yi li mu gën a fës ci actualité politique ak économie ci matin ci suba gi Aïcha Diaby maa ngi lay delloo kàddu bi jërëjëf Pa Malick Thiam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci xibaar yi am na solo maa lay xaar euh, su ko defee nga daal di yéeg fekk si ma fii ci plateau bi. léegi léegi lay doon léegi léegi lay doon merci beaucoup à Pape Malick Thiam ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci xibaar yi am na solo rawatina nag lu ñeel at yéenekaay yi mbokk yi bu ko defee ñu proposé leen ngeen seetaan benn clip léegi léegi ñu dikkaat ci plateau bi euh, dalal sunu ay gan fas yéene sikk ak ñoom waxtaan wu am am solo.